ci sama xel mi xam naa li mu xalaat ngay wax <laughs> donc moo tax mu wax loolu xalifa moom nee na ma ah daf may mere nee na ma ndax maa ngi ne Serigne Saliou ah li nga moom lu tax nga war cee am ay ay pourcentage yaa ko moom un pour cent dafa bëri ah pour une entreprise qui qui qui n'est pas sénégalaise donc c'est ça quoi noonu la ko bindee non xalifa boo mere <laughs> Ablaye Touré basir Diop ah, ah Soxna Touré yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax alors Serigne Saliou ñu dem ci beneen ponk. Mm-hmm di bu am solo bo xamanteni ni ne na de waye ba tay ciow la ngay top di ñun di and mhm. ak ñun mhm. euh, le président Ousmane Sonko di président Passef di premier mhm. ministre du Sénégal lamu wax keroog ci Grand Théâtre euh, dafa wara jur ciowam de non warul ciow ciow xam nga dëkk bi moy dekk bo xamanteni les gens toujours divisent se focalise sur ce qui n'est pas essentiel mm -hmm. moi je crois que discours pré euh, président Ousmane Sonko mm -hmm. par ailleurs premier ministre mm -hmm. dafa am lu ñu c'est-à-dire l'essence de son discours. mooy mhm. discours bi lan ci am solo. Mhm. lo xamante ne askan bi war na ko mën jariñoo. d'accord te di ci gëna am solo mais nit ñi dañuy jël une partie bo xamante même partie boobu sax am na lu ñu ko don lecture bu ñu ci doon am lu amay solo askan bi lay nek mais duñ ko def c'est-à-dire dañ koy jël dévier ko ci ñom ca lañu bëgg ca lañu bëgg. d'accord ca lañu bëgg. légui yow Sëñ Sall soo ma doon décortiquer déjà forme bi en tant que communicant. Hum naka lay après ñu dugg ci fond bi nak d'abord pour la forme xam nga les xolé tay bu wax euh, bête de communication je crois que vraiment Ousmane en est vraiment une communication mom kenn mënu ko ci. Hmm. et c'était la première fois aussi depuis élection yi jeex. Hmm. que mom en tant que leader de parti mu dem rencontrer ses militants. d'accord et c'est ça qui fait que le président Djomaye n'a pas du tout été présent à cette rencontre parce que nous avons dit laaj. a démissionné c'est-à-dire ci li nga xam ne lañ ko parti donc c'est le président de la République. donc pour ne pas faire des confusions il ne pouvait pas être là-bas en tant que président de la République mais Ousmane Sonko lui c'est le président du parti. le président Bassirou Diomaye fait absence ça, c'est justifié. et c'est à saluer non non c'est à saluer. ah d'accord parce que peut-être bu fa demoon mais d'ailleurs les à quel titre en tant que membre du PASEF mais lui c'est le président de la République. Mhm. il a démissionné vraiment de son <laughs> de son poste. de mhm. au, sein même de, du PASEF mhm. donc waru fond et il n'y est pas allé. mais Ousmane Sonko lui c'est le président du parti. donc il devait remobiliser ses troupes depuis bi nga élection yi donc forme c'était en public. taxaw wax il y a am lu ci am solo parce que mom bimu ñëwé lim leen c'est-à-dire vision bimu jëk décliner c'est-à-dire vision 2050 mm-hmm. lolu nit ñi waro nañ tok 2050 bon pourquoi le choix de 2050 pourquoi le choix 2050 xam nga bo xolé nous sommes en 2024 waaw dans 2050 c'est quasiment presque dans 25 ans 25, euh, ans, 25 ouais, quelques mois et tu sais qu'une génération nous, avons 25 ans. Mhm. c'est-à-dire que donc pour toute une génération voilà ce que nous nous devons faire. Mais mhm. nous, nga xamante ne tey bu ñu fi juddoo ba heure bu ñu war dem commencer c'est-à-dire que vision boobu des vision de dafay daf leen daf di concerner. d'accord. c'est pourquoi moi, ça c'est le choix Maxal avait dit 2035 mais nous, dañ ko pratiquement sur un délai de 15 ans 15 ans ça dit c'est pas une vision beaucoup au plan économique mënoo ci def lenn. kon lii ambition la vision. le fait qu'on projette jusqu'à 2050 mais c'est ça qui est normal. d'accord et lolo, et lolo beaucoup ko doon xayma 10 kii par exemple 10 ans quelqu'un bu fait 10 dix ans quelqu'un bu fait par exemple cinq ans encore 5 ans nous, ñu réalisé a réaliser contrairement à ceux qui disent que nous sommes là pour gouverner jusqu'à Le problème c'est pas nous nous sommes là pour gouverner mais ce projet cest une dire vision pour xamante nii bu fekkee da ko atteindre ans yi fii lañ jëm après ils vont décliner maintenant li nga xamante ne moom lañ que d'ici 50 50 ans là et c'est ça qui fait la euh, cette vision de 2050 Lolo d'accord déjà il y a des économistes des experts financiers comme quelqu'un comme Abdou Karim qui l'a vraiment très bien traité et que je salue au passage mais nous, déggoo ci kenn ku wax loolu. Mhm. dégguma ben économiste après bu taxaw daan ne pourquoi le choix de 2050? mille les gens ont préféré daan ne oui Ousmane Sonko ce qu'il a dit en disant oui premier euh, je ne sais pas ministre de la justice n'est encore ko wan nga ko vidéo ne ko li waaw ci loolu la ñuy mhm. les mesures yi nga xam moo am mais Ousmane Sonko wax na Ousmane Sonko nee na dans la semaine il y a des mesures yu am solo xam que au lieu que les gens se posent des questions mesures yooyu nan lay demee et cetera di ko mais ni ni nit Ni xool nit ñi waxuñu ci loolu. déedéet parce que pour ñoom loolu saxul leen te pourtant ñoo fi doon chaque jour di wax ne oui on attend les mesures réduction des prix et cetera et cetera et quand il a fait l'annonce, annonce au lieu que ñenn ñi ah waxati nañ ko on attend mais les gens ne l'ont pas fait. Ousmane a parlé de beaucoup de secteurs. Mm Il a parlé du civisme. Mm Il a parlé c'est-à-dire pour wax xalé yi ne leen li gëna a yomb lañu lañu la ñu fa la ñu mais li gëna metti actuellement moy nek. li gëna ñom moy faire de sorte que comment arriver au pouvoir mais li gëna metti moy pouvoir boobu nan lañ ko war a mën doxal ko ba li nga xam mom lañu sénégalais ñu Sénégal yi di sant ñun ñu mën ko def te loolu daf wax xalé yi mu ne leen. mu ne mënuñu ko def sans yéen waaw la jeunesse quoi ko sans yen c'est-à-dire que le vieil ça c'est-à-dire li ngeen nekk woon ñu mhm. il faut continuer toujours dans cette trajectoire ba nga xamante ne li développement bi nañ ko am. c'est-à-dire mhm. le développement ne peut pas se faire sans vous. gën conscience conscientiser waat pour que combat bi di n'est pas le combat politique parce que la am loo xam ne wees nañ c'était la conquête du pouvoir. Mhm. maintenant le maintien au pouvoir sa ba pare doxal li nga xam ne moo au pouvoir. sur l'eau loolu lañ ko doon lañ doon xaare point encore mooy sur l'investissement toujours des jeunes c'est-à-dire ni investir investiroo ci acte citoyen comme ce mhm. qui a li nga xam moo fi xewoon fan ci avec le clean day de du président Bassirou Diomaye mhm. que xalé yi génnaat wat sen bop te ba def leen ça doit être une action c'est-à-dire pérenne quotidienne d'accord que lolu encore bu len bu ko sur les promesses c'est-à-dire maintenant concernant l'emploi wax leen mu ne ñun mënu ñëw au pouvoir que ñëpp am ndombo tànk lolu il faut nga dind ko ci bop nit parce que japp nañ ne buñu xassone ba ñew au rek bu suba ñu def ben liste ñu ne ñepp war na ñoom liggéey fi ñepp war na déedéet da lañ bu wax ne ku ci nek fa nga nek doon fa yëngatu war nga fa mëna a continuer yëngatu dans la mesure où Sénégal secteur bo fekk ne yaa yëngatu war nañ la war mëna dolel ba lañ ci sentu nga gis ci nga gis ci sa bop mais pas parce que nous sommes arrivés aujourd'hui au pouvoir que forcément war nga jël samba ak ba sama militant lañ war naa leen mën a man aussi rayante na bañ yegg fi tay dama wara am poste ci gouvernement bi et cetera ça ne se passe pas comme ça loolu il faut que nit ñi dina ko seen bopp. parce que foofu dafa mel ni alerte am na fa jëm ci ñi ñu def ministre ñuy def DG. ak ñi tam ñu toog di xaar ne danañ leen. def dara Ousmane loolu la message boobu la bëggoon jàllale. que wax leen ne leen c' pas parce simplement que. jàpp da nga ne bokk nga parce que xeex bi ñëpp ko def ji. Hmm. tout le monde s' est

li nga xamante moom la ñuy séntu ci réew mi à brève échéance di ngeen dinañ dinañ ko gis. dinañ ko gis discours boobu moom la loolu loolu doon tenir wax leen ko ba pare encore loolu nga xamante ne moom la ministre de la justice muy di coow le. waaw loolu moom Serigne Sam taxawal foofu. dinañ taxaw xam ndax jibi mais loolu pourtant la lecture est simple jibi lan lan la loolu mu ne ministre de la justice. ba moo ne vidéo bi concernant militant de pasteur fait mu na yoon def liggéeyam def leen seen liggéey gars yi ne lan moo tax ah, ministre bi di ñëw ci. non xam nga xam nga non en fait ministre bi man de jàpp naa ne ce n'était pas pour prendre des instructions ce n'était pas pour prendre des instructions mais yëgal premier ministre que ne même yow say militant bu ñu defee loo xam ne du yoon dañ dañ leen war a teg fi ñu leen war a teg. Mhm. dañ leen jàpp comme tout le ah, monde. en loolu la fa bëgg message bi loolu la woon en réalité et même. pourtant Ousmane Sonko wax na ko Ousmane Sonko loolu mu wax mu ne defal sa liggéey ministre bi ba nga ko koy wan cest à ci dynamique boobu la woon donc Ousmane n'avait même pas besoin sax ministre bi def leen seen liggéey peut-être na ko nii rek mais ce qui est sûr et certain mooy même dans son bureau mën na ko sabañ a wax mais loolu bu mu ne ko defal sa liggéey loolu c'était pas destiné au ministre mais c'est destiné aux militants mooy yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk Pastef lépp lu ngeen def loo xam nii dafa waroo ak yoon jàppale ne dina daal seen kaw ngeen bokk Pastef ngeen jige ma ngeen bañ maa jige mooy képp koo xam ne réew mi def ko fi loo xam waroo ko fay def foo mën a féete yat bi yat bi dina dina dal sa kaw. Mhm. parce que loolu mooy état de droit. et loolu je crois que booy patriote yi comprendre nañ ko bu baax a baax a baax parce que xamul lu graw mooy li fi xewoon man ci parti bi laa bokk. lu ma def kenn du ma def cest à kenn du ma laal mais bu ñëwee defee ñu ñu kii loolu leen bu wax ne nee na cest à jeex na ci réew mi. même su fekkee ne Pastef ngeen bokk su ngeen fi defee loo xam ni jadoul, mhm. c'est-à-dire yattu justice bi dana. dana dal seen kaw le dal seen message bobu nag. na ko gis nga voilà ce message là qu'il fallait tirer de ce qu'il a dit à propos du ministre de la justice. mais c'était pas pour donner des instructions et cetera parce que même su ko waxee su ko le ministre de la justice allait faire son travail pour qui qui euh, quand euh, connaît Ousmane Ousmane Diagne Ousmane Diagne ku ko xam xam c'est quelqu'un de très rigoureux. Ousmane Diagne koo xam xamne ne yenn yi kenn ken kenn kenn kenn ko ci mm. kawam. parce que ñun dañ ko gis sous des régimes yo xamanteni dafa bañ ba tëdd ci naaj bi te loolu mu doon bañ dem ba tay ji mom lay ko bañ. Mm. donc moi je crois que voilà la lecture qu'il fallait faire de ce que Ousmane Sonko a dit à propos vraiment du ministre de la justice. mais mais ñi doon wax ne tamit nan mm. bon mom dafa yakane ba tay il est c'est un opposant maintenant il est le premier ministre hein ñooñu tamit ban réponse nga leen non xam nga limay wax Ousmane.

aujourd'hui la presse ne parle que de la dette fiscale et je crois que la meilleure façon aujourd'hui euh, la meilleure façon Ousmane Sonko c'est de faire une communication parce que aussi c'est le chef du parti qui est sorti hein. aussi c'est-à-dire le premier ministre même s'il il y a quelques aspects qui ont touché bon ça fonctionne le premier ministre mais nañ jàpp c'est le Ousmane Sonko président du PASTEF qui était là-bas donc ni aussi loolu buñ ko buñ voilà donc il fallait que moom mu en l'absence bien sûr des canaux de communication bien, euh, de PASSEF, qu'il fasse en communication. Et ça a été un, un, un coup d'éclat vraiment médiatique. Mm-hmm. Parce que les gens ne parlent que de ça. Et au même moment, le président Dioma est en train de dérouler. Ah, le président Dioma est en train de dérouler. Il n'y a quelqu'un qui a dit le président Dioma. Non, il y a Ousmane Ousmane Ousmane actuellement nii c'est-à-dire boo xoolee moom deful boo xoolee Ousmane fi ñu toll nii. mu ngay liggéey moom. Ousmane il joue même le rôle de protecteur du président. Ah, parce que actuellement nii il fait de sorte que c'est le bouclier. parce que ñoom moom bàyyi kële kële mën a liggéey liggéeyam quoi président il est en train de ah, dérouler c'est ça c'est ça la stratégie. Ah, xam nga xam nga Ousmane moom. ne leen kaa leen wax ci man garaawul. mais xam nga léegi mais xam nga gars yi lu ñu xamul mooy. nee na mais ce qui tire sur Ousmane aujourd'hui mais ñoo ko doon def démb Hmm. parce que affaire bi du hein. les gens ils disent que Ousmane dafa bàyyi ba au pouvoir non moi même quand il était dans l'opposition ce sont ces mêmes gens qui ont tiré ci kawam hmm. dara changé wu fi boo xoolee presse bi presse bi doon dal ci kawam démb ba mu dans l'opposition c'est cette même presse là qui continue toujours motax mom affaire warul def effet ci mom xam nga fu mu def effet moy nga nek dans l'opposition presse bi yeb def le ni def le ni nga au pouvoir presse bi retourné contre yow wad lolo ko daloon lolo dal Macky Sall mais Ousmane moom de tout mënul nekk cas boobu noonu. non mënu ko nekk xam nga euh, ñi dafa mel ni presse